asalaamaaleykum les jeunes maa ngi toujours di la feddali sama yitte bi nga xam ne am naa ko les jeunes pour mën a ànd ak yow pour mën la gunge pour mën la wéttali ci jaar-jaar yi nga xam ne moom nga nekk dëkkmal say projet ak say ambition yàlla na ci yàlla dimbali manoon nañu indi entrepreneuriat développement personnel ma stratégie pour les lu nga xamné tay buñ ko man na doon ne na yewenal sa mbiru façon théorique comme niñ ko mais pour plus d'efficacité ma yaakaaroon man nañ def genre storytelling moy li ma lay wax ni indi situation bu nga xamné bu mel ni exact xawna ko niru bu ko xolal da fay mel ni comme ñuluk xam nga tay ji dekk bi dafa metti il paraît que ñu ngi jaay ñuluk fa lañ tollu mais yalla baxna ñuluk bobu bu ko defé do fi nek di furna mba di xam bat ba dem di jëli say tamaate peut-être matul mba yoy dedet dañ lay jox ñuluk bi rek bo paré nga dem uti sa ciép nga sour xamna naa ding ci dolé ay saf-safal ak yoyu waye bu boba muy sembir, paske parce que sembir la nak c'est ton projet mais Gungé bi laa ci bëgg projet pour projet pour nga ko réussir vidéo yi passé dama la doon wax Modou donc comme ni ma la projet pour démarcher Top nañ ko ci premier fan bi nga idée de projet naka def ba idée bobu ñëw ci mom idée bobu ko comme wax pour ne la gis nga idée si vous idée kese vous yobou dis. parce que ku que tu as ton idée mais li am solo xam nga idée bobu gannaaw nga am ko mu travailler pour appliquer pour nga implémenter en termes de projet en termes de réalisation waye idée kese du sotti nous dem na marché mu le marché bi loolu lañuy wax la veille environnementale mbir mu il faut nga dem ak mom bu ko dina am lu la lu ne sa mébét di nga mën a ñëw ci façon boo xam ne dina fekk nga pare. ci boobu la ko joxee gis-gis nekk mën nga def pousse-pousse mën nga louer pousse-pousse pour mën ci yëngatu ci marché bi def ay transport de marchandise ko nga mën ci am kaañ loolu la taxawal. loolu comme ni ma leen ko waxee dafa laaj location mille francs 5000 francs yooyu Modou amu ko. foofu dañu ñëw ci fànn bi nga xam ne mooy financement te wax naa ci tuuti ci vidéo yi nga xam ne moo mujj financement dañ ko jàpp ne boo ci tolloo rek sa way il faut nga dem laaj yi il faut nga dem lebi il faut nga dem uti les fii dañu wax moodu amul financement amul formation te lii dafa doon loo xam ne dafa doon lu yaatu ci yéen les jeunes mais donc dafa am loo xam ne boo ci tolloo ci àddina bul ko contourner da nga koy régler bu mes problème de financement jéem nga sa ak sa bëgg financement de financement. nga ak sa ce n'est amul c'est pas une raison pour que nga un projet bi de amul c'est pas une raison pour que nga bëgg a de un an deux ans dugg ci ay paperasse solution parce que y daf ñu toujours solution vous avez, soxla bu doon mille ba na nga door rek li ci des am na lu ci am ci biir loo xam ne baatin la boo xam ne la ko dooree la mu néew néew yàlla ci dugal ndimbalam ci loolu nag la moo toll au lieu que mu dem lebi ko mu ne dafay toog ci marché bi lijjanti foo xam ne mën na fa lijjë mën na fa liggéey pour mën a am loo xam ne dina mën a financer loolu le jeune gis nga loolu mu ngi lay jàngal lu bari tey di nga am ben projet nga ne dama bëgg ubi ben épicerie mbaa dama bëgg ubi ben commerce mais commerce boobu ci 2 millions c'est 3 millions fekk yow yaa ngi commencé di liggéey dara loolu amna lu ci ruus fofu ngay mëna organiser ci loolu naka nga ko mëna a pour mu mëna financer sa projet bële bu fekkee ne dafa doon légui ben projet bo xamné de moindre envergure bu gëna wacc wàcc ah, xamné da ngay soxla 200000 300000 jeune yu bari tey jii fan na len yalla jaarale ci benn table ñu dem ci boutique dem ba commencé am benn magasin de gros commencé doon importateur mais yàlla mu ngi commencé ñu xëy suba dem saalum fa la ñu dem naweti ji am benn fonds muy deux cent mille mbaa boog tey jii ñu dem ci benn usine di def foofu yi bu boobaa loolu ngay am da nga ko def pour mën ko dajale comme fonds d'amorce pour mu mën a régler sa problème bële. Modou lijjanti na ba donc liggéey.

parce que gis nga àddina ñun ñëpp dañu nekk ci ay confort maanaam dañu nekk ci benn niveau boo xam ne dañuy nooyal dañu nekk ci benn niveau boo xam ne tant que jëluñu suñu bopp sës ko ci miir bi tant que demuñu ba nga xam ne dañu poñe suñu bopp am na yoo xam ne duñ ko réaliser tànk mbir yaa ngi taxaw mbir yaa ngi normal mbir yaa ngi nooy noonu lañuy ñuy mel dañuy noobalee dañuy bàyyeeku loolu tax Modou ba mu identifier créneau bi duggagu ci mais wóolu na ci boppam te wóolu boppam bi mu ànd ci décision boo xam ne xam na ne pour mën a conditionner boppam il faut que mu indi benn pression loolu tax mu dem ci góor gi nekk ko junnee ngi nii dama koy def acompte mais dama koy def acompte si trois jours léegi dinaa liggéey tey suba dinaa liggéey ak gannaaw suba saa bu ma wàccee dinaa ñëw jox la cinq mille c'était que matériel bi nga xam ne wóoru ko ne dina ko jot suba ak gannaaw suba mu mën a indi benn système boo xam ne dina ko mën a sécuriser pour téye ko xel deuxième système deuxième gisin bi nga xam ne moom la ci am mooy moom dafa bëgg a boppam pour que mu xam ne fii dafay dee rek mais foog mu réussir parce que bu ko defee benn jour mën na dem ba ngoon mu am ngooñ suba mu toog affaire bi xaw a nooy mu ne boo naa bàyyi ou bien naa uti leneen mais bu njattee boppam dem bàyyi fële waxam jël xaalis bàyyi fa mais bu boobaa dafay njatt boppam mooy tax trois jours yooyu foog mu def ko donc mu ngi conditionné boppam parce que ñun ñëpp ñoo yem yàlla moo ñu bindee noonu laaj na ñu xam suñu bopp pour xam toujours naka la bu ñu bëggee jóg ñu mën a mobiliser suñu bopp bu ko yenn yi nga xam ne moo ñu gàllankoor ñu mën ko régler suñu bopp pour mën a doon ñoo xam ne dañuy disponible dañuy volontaire fi ñu jëm dañ ciy mën a dem à fond loolu mooy affaire bi Modou ba mu defee loolu mu waxtaan ak góor gi mu juboo ci moom mu jox ko 5000 engagé wu pour 3 jours mu jox ko pos pos bi bii Modou yàllaate mu waxtaan ak góor gi ba pare gis nga yàlla lu muy def yàlla lu muy def lu baax lay def mais day fekk yow nga tegu ci. gis nga Modou mii disposition yi nga xam ne moom la jël ak ni nga xam ne noonu la tërale mbiram boobu ak léegi pas-pas bi nga xam ne moom la ci am la ma la wax ne la subconscient bi moom mu ngi toog rek mu ngi liggéey la ngay lijjanti di wax di dox di dem moom mu ngi lijjanti yeneen yu gën a garaaw parce que moom mooy régler connexion yi dafa mel ni yi nga xam ne mooy jëfandiku yu mag yi nga xam ne moom la la sa borom jox te mënoo ko gis mënoo ko peeg foofu lay tibbe moom ba mu waxee góor gi ba pare ne ko suba dinaa xëy la benn borom puus-puus benn xale bu mel ni moom ñëw nuyoo jël ay caabi jox góor gi góor gi ne ko kii de sa naataangoo la laaj ko mu wax la ci mbiru puus-puus xoolal lii te Modou laaju ko dara mais gis nga yàlla ni muy def booba nar na boole mbir booba yàlla mu ngi boole mbir yàlla ngi ubbi bunt nañu xerewlu sa borom taxawul sa waay di yónni ay jinne ak ay malayka yow lay waxal mais daf ko jaarale ci nit ñi il faut être attentif booy bi nekk ah da bëgg a commencer mu ne ko waaw booy bi toog ak moom ne ko fii liggéey bi mu ngi commencer quatre heures du matin am na ay oto yu jóge jogo am na ay oto yu jóge noto guy jama am na ay oto yoo xam ne dañuy indi ay bagage u jaww bi ainsi suite indil ko cadrage bi ne ko boo ñëwee tel point quatre heures du matin di nga fekk oto yi wàcc sàngam foofu ngay taxaw comme sax bu ñu ñëwee nga mën a jël affaire yi nga indi ko ci marché bi boo bëggee sax suba man maa ngi nekk place sàngam fekk ma fa quatre heures du matin ma walla liggéey bi gis nga de yàlla moo jiw indi connexion bi boole ak ñoo xam ne saa waay ñoo lay aiguiller. gis nga ko jóg di dem di xeeñtu ji ay xéwalam ndeysaan rabbul arshil azim daf lay tasaleek moom lu kawe sa booy boobu la àndal quatre heures du matin boobu booy bu fu mu chargé mu chargé topp ci ginnaawam keroog boobu ba ñu réglé ci jour boobu Moodu am na huit mille cinq cent Moodu yàlla may na ko kaañ ba nga xam ne dem na ba fay puus-puus boobu ba dese mu defaat ko defaat ko xanaa kon activité taxaw na acca diggante J plus zéro ba J plus Modou am na fi benn pousse-pousse boo xam ne moo ko moomal boppam ba mu jëndee pousse-pousse boobu la di warloo boppam ne weer wu jot dina liggéey loo xam ne genn wàll gi yëpp dina ko denc te bu ko dencee dina def tout fu mu mate mu jënd pousse-pousse ba yàllaatee ñaareelu pousse-pousse bi taxaw léegi nag mu des kan lay jox pousse-pousse bi gis nga gis-gis bi mu ci am parce que liggéey na jànkoonte nag affaire bi xam na ay sew-sew ci biir yoo xam ne mettit yooyu mu ci gis ak jànkonte boobu moo tax mu ubbi ci xelam loolu moo ko jàngal ne am na beneen business ci biir business au lieu nga ut ñoo xam ne dañ lay liggéeyal léegi dangay indi benn business boo xam ne dafay gën a xër xel mooy tey jii moom dafa am pousse-pousse mu mënoon a jël ay jeunes yu mel ni moom ne leen léegi chaque jour da ngeen may verser nangam xale yu dem lijjanti ji versé léegi nag dafa tourner business bi def na leen dama am ay pousse-pousse boo amee 4000 ma loué la boo liggéeyee di nga mën a am 7000 mbaa 6000 bu ko defee moom dafay mën a jëndaat yeneeni pousse-pousse léegi loolu si la nekk ba tabax ci businessam ba am dix quinze pouce pouce yu nekk ci marché bi mu pare foofu demaat ci yeneen marché boo paree mën na wër Sénégal ak ay pouce pouceam parce que xam nga lu sax buntu bi feeñ na. léegi réussite boobu nga xam ne moom la moo du def léegi na nga ko dandale ak beneen boo xam ne benn waay boo xam ne ñëw na léegi marché gis na affaire pousse pousse mu ngi dox au ko mu dugg ci comme noonu moo du duggee déedéet dafa dem uti ay kayitam business plan def affaire ne voilà marché bi. nangam ñoo fi dugg amna temps de pousse-pousse volume d'affaires bi nangam la légui daal di def ben étude de projet né légui damay def ben projet bo xamné damay créer ben entreprise pousse-pousse xeyegul de demagul fenn mais dem na bind am un mois defar business plan dal di bëgg a jël loolu yóbbu ko ci banque ne voilà pousse-pousse dina dox parce que marché Tëngéej mbaa marché Géejawaay mbaa feneen. Un hein, flux flux marchandise nga à partir de 4 du matin Car yi taxaw ak fi nga xamné ko wara a ci marché bi dafa sori une étude de marché ci dara il raconte du vent li muy wax daf ko dégg dund ko bu ko bu ba comme banquier de dañoo yaru on va étudier le dossier du étudier dara après nga ne banques yi du ñu financer pourquoi ñu lay financer sur quelle base la war a taxaw pour financer la yow xamoo ci dara. waaw léegi nag moom moomu mooy pare ci banque bi dem Moodu ñëw toog banque bi du wax ak moom dana kan Moodu loo soxla parce que Moodu bés bu jot la muy liggéey lépp mu ngi jël di ko verser ci compte bi bu paree def ay frais banque bi xaw na à chaque jour Moodu li muy dugal ci compte bi.

banque du label ben waay rek comme ça pour la tête du client déedéet day label activité li tax mu ñëw ne modou kayma label la c'est parce que te modou xelam nekku ci mais daf ne ko kaay man maa lay parce que banque bi day xol business am bu fekkee ne modou tey jii dafa indi ben taux de profitabilité bo xamne dafa toll ni mu def tout pour man ko yok moy manam bu fekkee ne Moodu day verser tay 4 millions par mois les dafa bëgg Moodu di verser 10 millions par mois donc les daf koy pousse. pour que Moodu gën a équipé wu indi benn parc boo xam ne bu doon am dix dina am cent parce que xam ne ne bu amee cent foofu ci banque am la koy dugal loolu mooy intérêt waaye le jeune maa ngi lay dig yeneen problème yoo xam ne ah dinañ ko tegaat ci table ji bu ko defee ñu ànd ci ñu gungante ñu wettalikunte ci kattanu yàlla